et Ousmane Sonko. tey daal lañ leen nar a déglu ci 11h euh, mami démb gis nañ nag euh, aji saar moom nee na moom elle est prête pour tey daal. Bayanta may ma ñaar ñii nee nañ euh, la. ne. Ah, ci mami nga ne ah, d'accord maa ngi ñëw ci. wallaay sax Ndiaye Ndiaye du ma ci dama bëgg Mbaye Anta may ma mami. Ndiaye Ndiaye ma mi sëngéem ne dafa jaaxle. non dama sànq billaahi yàlla nabu yow ah. ose ose rek jàkkaarloog man ne ma sonnoo ci réew mi <laughs> nit ñi dañu sonn en fait les gens sont fatigués sincèrement moi je suis fatiguée euh, bon écoute Adji depuis très longtemps depuis son interview d'ailleurs en tout cas bu mu defoon RFI ci euh, jour anniversaire au dépôt de de plainte bi mu bi mu defoon te mu indil coow lii yëpp am tey. Mhm. ci diggante mag Ousmane Sonko ci interview boobu ci RFI waxoon na ne moom li nga xamante ne moom la bëgg te yàkkamti ko mooy confrontation bi ak Ousmane Sonko elle l'avait dit Ousmane Sonko également. Euh, moom itam waxoon na ni yàkkamti na également que dossier bi ñu ñu dem ci procès ñu régler ko une bonne fois pour toutes et ñu setal daram ci ci mbir mi ni donc Euh, justice dafa nekk di suivre si tu li nga xam ne moom mooy suite logique bi ci ci dossier bi ni mel. Mhm. Euh, aji la ñu njëkk a woo mu dem wuyu ji jàkkaarloog doyen des juges bi mu paree Ousmane Sonko ñu woo ko. mu dem wuyu ji doyen des léegi nag euh, li nga xamante ne moom moo ci topp tey mooy ñoom ñaar daal ñu teg leen ku ne toog dégluwaat leen ci li nga xamante ne moom mooy mbir mi leen boole ñoom ñaar ba ñu ciy dem tribunal di yéeg ak wàcc Euh, bi ci topp mooy oh, bon on c'est une confrontation effectivement très très attendue parce que bëgg nañu xam dëgg-dëgg la ñuy jëlee ci bureau bureau juge bi defe naa ne Adji wax na ne dina dem de même que Ousmane Sonko d'ailleurs je pense que également il a il a dit qu'il allait partir euh, répondre à cette convocation là et moom d'ailleurs moo ci ëpp intérêt sax à ce que lii ñu leeral ko une bonne fois pour toutes parce que moom il a des ambitions politiques mm -hmm. c'est quelqu'un qui aspire à être président de la République te bëggul également bu cay dem image am entaché wu ci problème bi nga xamante ne moom mooy mbir Adji Sarr mii nga xam ne eh, ba ñu ko defee ba léegi est mbir bi deful deux ans wala trois ans ci la jëm. Euh, et un ba deux mille vingt trois ñuy traîner dossier bi dëgg-dëgg c'est vrai que nag bon justice moom dafay dem ak rythme am mais les gens aussi ont envie euh, d'être édifiés sur ce cas-là et que ce dossier-là soit un dossier clos. pour que ñu mën régler yeneen i mbir également yu yu gën a a am solo. Euh, ci ci réew mi yoo xamante ne yitteel yi on ne va pas dire que cette l'opinion. Cette affaire intéresse l'opinion. Les gens ont envie d'être fixés sur cette affaire-là. Mais au-delà de tout cela, ñi aussi dañu sonn sincèrement que ça soit le même débat qui revienne sur la table beneen bi ci topp mooy nous aussi on attend de voir au-delà de cette confrontation de Adji Sarr Ousmane Sonko tey est-ce que doyen des juges également dina saisir wala dina convoquer xam ne tudd nañu leen ci dossier bi yépp aussi mm-hmm. loolu les gens attendent de voir est-ce que ci wàllu woowu dinañ leen woo convoqué leen ne leen yéen kat tudd nañ leen ci mbir mu ni mel indi ñoom itam ay éclaircissement dans le cadre de la manifestation de la vérité sur cette affaire Sonko et Adji Sarr mm-hmm. et li ciy topp rek au sortir de cette rencontre d'aujourd'hui et ñun ñëpp nous sommes suspendus aux lèvres du doyen des juges pour justement ndax dafay acquitté mbir mi dafay tëj dossier bi kenn doo ci waxati dafay dem procès wala justement dafay ubbiwaat yeneen i enquêtes yoo pour avoir plus de précision sur ce dossier-là. Mm -hmm. Dans tous les cas euh, aujourd'hui ben écoute euh, ak dispositif sécuritaire bi ma dégg nañu ko yépp Euh, tribunal bi nga xamante ne daanaka man gëm naa ne tey dinañ ko bancariser tout simplement parce que ñoom ñaar dañuy ñëw mais ñoom ñaar ñooñu ce des sénégalais euh, lambda comme tous les sénégalais. yoo xam ne yoon daf leen a soxla ñu dem wuy ji yoon dans le cadre de la manifestation de cette vérité là euh, donc il faudrait que que ñu ñu ñu féetale dëgg gi fi ñu jox dëgg fi nga xamante ne foofu la foofu la war a féete mhm. pour que nit ñi mën a jàll leneen ci ci mbir mi nga xam ne dëgg-dëgg mhm. euh, sonn nañu ci depuis depuis 2021 ba tey on en parle cette affaire euh, Ousmane Sonko Adji Sarr on a besoin que le dossier soit clos et qu'on passe à autre chose mhm. effectivement euh, merci Mamy Socé en 2021 bu coow li di jëpp Adji Sarr lañ déggoon ak Sonko waaye nemmeeku nañ ni bi ñu demee ba 2022 wala ñuy gën a dem ci euh, problème bi ñu ciy dégg yeneen i tuuf. Mm-hmm. ndax déglu ñeneen ñi nga xamante ne lañ ci déglu ndax du gën a mën a leeral dossier bi ba ñu mën koo tëj pour une bon fois pour tout. Ah, ah ok xam nga euh, instruction moom enquête la rek. Mm-hmm. enquête la rek parce que bon dossier bi dafa may ay étape première étape boo fàttalikoo mooy enquête bi gendarmerie njëkk a def avec le capitaine Touré. Mm-hmm. après bi mu demee ci procureur procureur ubbi instruction. ñu tànn benn juge d'instruction jox ko dossier bi mu defar enquête waaw jaar na ci loxo yeneen àttekat ku mel ni le doyen des juges Samba Sall malheureusement sunu boroom moom ko ku ñu koy ñaanal mu teru ko ci àjjana yu gën a kawe dossier bu jóge fa ñëw ci loxo am na keneen ku ñu choisir koo xam ne mu dafa désister ci la ñu tànnee ki nga xamante ne moom moo remplacé Samba Sall muy l'actuel doyen des juges mais xam nga. dossier la boo xamante ne nabu mhm. pour man kii kii wër fu mu fanaan taseeg kuy wër ku ko wéttali tëjal bunt bi de waru leen boole tëjal bunt waru boole. dëgg la muy aji Sarr muy Ousmane Sonko ñoom ñaar ñëpp nee nañu mbir mi dafa war a leer. Mhm. ci yoon boobu la ñu nekk yoonu leeral te gën naa ne bu ñu leen bàyyee rek dina leer xam nga lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy jaxase. lan moo indi problème ci dossier bi. Mhm. politiciens yi ci dugal seen loxo. li tax Ousmane Sonko naan complot la parce que dafa observer que ne y' a beaucoup de de de, de gars de l'APR mais yu ñu tudd ci dossier dugal seen loxo ci biir. c' est pas pour rien que ñoom ñuy demander au doyen des juges parce que mu entendre Mamour Diallo. Mhm. c' est pas pour rien les avocats Sonko di exiger ñu déglu ku mel ne Baye Mbaye Niass MC. Mhm. mais loolu bu amee man de bu doon may doyen des juges bien ki n'est pas tenu de le faire aussi loolu il faut le rappeler c'est le doyen des juges moom moom mooy xool ñi nga xam ne ñoom ñooy les protagonistes et ñaar lañu c'est Adji Sarr c'est Ousmane Sonko ak peut ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci salon bi au moment des faits ñoom ñëpp déglu nañ muy Ndeye Khady boroom salon bi jëkkëram yaa a d'autres masseuses qui ont été entendues Adji Sarr Ousmane te confrontation foo ko dégg rek xamal ne ci réponse yi dafa am ay. ay réponses yu waroo xam nga li ma mhm. bu kii nee lii kii ñëw wax la contraire dañuy toog nag ñoom ñaar ñi kenn ku ci nekk ñu laaj la lañ la laajoo nga tontu devant ki nga xamante ne moom nga moom nga moom nga jotal xëy moom aussi ñu laaj ko mu tontu buñ ci paree nag juge bi moom mooy xool selon les éléments dont il dispose ndax lii yenu na maanaa wala yenuwul maanaa bu yenuwul maanaa moom am na droit classé ko sans suite wa ilaa mu yóbbu dossier bi tribunal ñu àtte. Mhm. mais daal wax dëgg yàlla Mamy dafa wax lu am solo gis nga muy Adji Sarr muy Ousmane Sonko ay sénégal lañ te tey boo demee tribunal xool dispositif sécuritaire bi tey am na ci ñoo xamante ne tey ñëw leen tribunal pour soxla këyit boo xamante ne. Mhm. buñ ko amul tey mën na yàq lu bari ci seen àdduna. Mhm. ñooñu boo xefee tey duñ ko am. c'est clair ak ñeneen ñi ñu war a àtte. ak ñeneen ñi ñu war a àtte ñoo xamante ne tey dañ leen war a libérer tey tey ñu ne leen noonu repousser nañ ko parce que dañoo war a euh, confrontation dafa am. il faut que ñu xam ni sénégalais ñoom ñaar ay sénégalais lañu et que dossier bi tey egg si na foo xamante ne wax dëgg yàlla nag tey tey moom bu lu leeru génnul ci bureau doyen des juges moom tey ma xam ne man xamatuma ci dara. Mhm. parce que bi ñuy déglu Ousmane Sonko Adji Sarr fekkewu bi ñuy déglu Adji Sarr Ousmane Sonko fekke wu tey nag ñoom ñaar ñëppay toog kenn ku ci nekk ñëw ci li nga waxoon buñ ci paree nag juge bi moom mooy moom mooy tranché mais bu ci bu ci nit ñi surtout les politiques nag rawatina nag ñi faral di du camp du pouvoir nañ ci nañ ci tey te maandu ci te bàyyi justice mu def joobam comme il faut buñ ko defee man gëm naa ni solution dina naa mais fekk ñu ngi ciy dugal. ay enjeu politique. Mhm. et enjeu politique bi weesuwul fexe ba Ousmane Sonko mii ñu daan ko ba du mën a bokk ci élection yi en deux mille vingt quatre c'est tout l'enjeu pour ñoom mais du ñoom ñooy wax àttekat yi li ñu war a def xam nga sànq ñu ngi ne journaliste yi am ñi indépendant ñi indépendant mhm. mais magistrature bi aussi am na ci ay magistrats yoo xamante ne mais d'accord ñu ak ak yeneen ak yeneen magistrats yi ci seen façon. Mhm. maanaam ñàkk d'accord ak nit ci façon bi muy pratiquer métier bi. teewul nag yow boo ci waree taxaw nga taxaw ci boo ci waree def li ci war a def nga def ci li nga ci war a def. exactement exactement. c'est ça loolu donc nañu nañu wóolu man de franchement doyen des juges ah bi mu jël nii man sincèrement dal na sama xel ma parce que ñi ci waroon déglu ñëpp déglu na leen ñëpp tey nag la leen wóoluwaat ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoom ñaar ñoo indi coow li ñu toog kenn ku ci nekk indaale say avocat avocat yi dañ koy fekkee. avocat Adji Sarr dañuy toog nii avocat Ousmane Sonko toog nii ñoom ñaan ñu toog jàkkaarloog doyen des juges ñu leen di laaj ñuy tontu mhm. buñ ca paree nag juge bi mooy xool ndax lii mu yor nii jar na yóbbu tribunal ñu àtte wala jaru ko je pense foofu lañ nekk. Mhm. léegi nag ñi ñu ci war a déglu aussi man de bu doon may moom képp ne ma kii am na ci xibaar boo war a xam yow doyen des juges dinaa la woo déglu pour gën a fonder man décision bi ma war a jël man avec des faits nag parce que nag jour justice ak journalisme dañoo xaw a niroo benn côté mhm. justice. le droit et dit sur la base des faits. Mais le journalisme aussi et pratiqué sur la base des faits. Les faits, rien que les faits la donc jugement bi yépp loolu lay reposé donc ñi ngi xaar ba xam lan moo nar a tukkee ci ci ci ci ci audition bi. léegi nag kii kii dafa wax lu am solo gis nga Adji Sarr n'a rien à perdre dans ce dossier. Mm-hmm. Adji Sarr nii am dara lu mu ciy parce que Adji amul benn ambition. Adji Sarr du candidat à la présidentielle ki nga ëpp intérêt à ce que dossier bi leer pour man c'est Ousmane Sonko parce que moom moo nekk di dagaan baatu askan wi tey moom moo ci war a gën a mën a taxaw sax pour affaire yi leer mais kee nga xam ne sa waay Adji Sarr bi dossier bi lañ ko xam. xanaa xanaa retrouver retrouver liberté comme elle dit entre guillemets que sa vie se entre sa chambre et, le salon euh, et qu'elle est surveillée matin midi et soir peut-être retrouver sa liberté parce que dafa war libre na quand même aji dëgg-dëgg mu génn dox ay soxlaam sans que sans que dara que gis nañ ko récemment muy génn ñu ngi koy gis. waaw dafa war a génn sax ndax i soxnaam problème amul non moom problème amul sax de man dama yaakaar ne xëy problème bu amee c'est que finalement ñoom ñoo créé situation de problème boobu mhm. yow parce mhm. que moom loolu warul mën a nekk ci ci ci moom beneen bi ci topp mooy dama lire ci journaux yi am na ci ñoo xam ne dañuy bi ñu bindee confrontation bi dañu bind ci suuf Adji Sarr mu wax ne je prête mhm. lu xew. prêt prêt pour qu'est-ce qu'il a non c'est-à-dire que xam nga nabu <laughs> nabu information dafa doy waar de. communication dafa doy waar communication ci boppam laa wax dafa doy waar ci ñu ko gën a mën a décrypter bokk man de aw ma xam-xam xaw ma dara mais pour man bon écoute ne serait-ce que pour cet équilibre d'information là quand tu mets Adji Sarr je suis je suis prête mais Ousmane Sonko je suis prêt voilà. sa dire boo insister ci le fait que je suis prête dafa mel dafa am lu xew combat la wala guerre la wala dafa non. aujourd'hui non non non dara xewul confrontation confrontation bi confrontation la ñu wax dafa normal Socé Ndiaye c'est normal waaw mais dafa mais dafa normal confrontation kay am na tribunal chaque jour que jëfe ah, confrontation am na tribunal bés bu yàlla sàkk na bu ko ñu confronter ay nit ñu toog où est problème man dama man problème bi fan la féetee beneen bi ci topp mooy mbir mi après ma jox soose nga yeggali. Mhm. Euh, mais dafa am ay dégâts collatéraux yu ci am non. am na ci fukki nit ak ñeent yu ci ñàkk seen bakkan waa ñooñu tamit du ubbi enquête xool ba xam responsabilité fan la ñu yóbbu leen tribunal wala. wala ñu déglu leen wala ñu enquête. wala ñu ubbi enquête sax ci mbir mi ni mel loolu tamit dañ ci xalaat tamit. parce que ñi ñàkk seen bakkan noonu warul ñuy aussi ah. parce que dégg naa euh, moom pare na pour ñu déglu ko. waaye boobu ba tey déggu ma benn yoon ñu ne woo nañu ko. capitaine Touré boobu ba tey ñu ko dàq ci liggéeyam te moom bu fekkee ni moo yoroon mbir mi te cappandaw ba maanaam ba muy tàmbali léegi moom ndax moom waruñ koo mën a teg daal di koy déglu moom it mu wax lam ca xalaat bu weesoo euh, certificat médical bi nga xamante ne médecin bi moom wax na ci. non balaa may ñëw ci capitaine Touré kii li mu wax enquête bi sur les morts. Mm-hmm. bu ngeen fàttalikoo Antoine Diome. Mm-hmm. le ministre de l' intérieur annoncé na ko. waaw loolu kay la ñuy laaj waaye enquête moom annoncé woon ne dinañ def enquête ba xam quatorze personne yi ci ñàkk seen bakkan lan moo leen rey. Mhm. boobu ba léegi nag gisaguñu les résultats de l' enquête ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaar beneen bi Adji Sarr je suis prêt bi mais boo fàttali ko Adji bi ko doyen des juges convoqué pour déglu ko. Mhm. lan la waxoon oui au procès. Mhm. yéen a ngi koy fàttali. waaw bien sûr ce qui veut moom moom dafa romb sax confrontation moom. Adji veut un procès léegi nag pourquoi elle tient à ce procès la c'est ça la question parce que le juge est le juge n'est pas tenu mu yóbbu dossier bi procès ah. déedéet bu ko neexee tey tey tey bu ñu jógee ci confrontation. dossier bi jeex mu classé dossier. Mm-hmm. bu ko neexee mu classé ko tey tey tey. pourquoi Adji tient à aller au procès loolu mooy la question beneen bi mooy ñi ñuy déglu xam nga xam nga eh, nangu instruction bu amee. Mm-hmm. le juge dama lay wax benn affaire fii xam naa ñu bari duñ ci d'accord mais le juge n'est pas tenu maanaam du avocat yi ñooy wax juge d'instruction ki nga war a déglu ak koo warul déglu mbir dafa xew ñaari nit seq ko mhm. fa mu amee fa mu amee muy suite boote képp ku fay liggéeyee doyen des juges déglu na la muy ka ko moom jëkkëram nee naa la am na yeneen mensonges yu ñu déglu dans ce dossier mhm. parce que ña nga boo fàttalee ko Adji Sarr ba mu defee conférence de la mu nettali yoon Adji n'était pas seule. après dafa génn dafa am ko génn même la fille a été entendue par le doyen léegi nag bu ñu demee procès bu ñu demee procès par contre là mën nañu woo ñeneen déglu leen assemblée ma la wax koy xool ci li xew Guinée mooy l'affaire du 28 septembre ñi ci jàpp ñépp ñi ñu nekk di àtte ñépp tey mooy c'est des gens yoo xam ne ñoom ñoo nekkoon ci dossier boobu kese gisoo ñu woo ci beneen témoin di ko déglu donc tey doyen des juges bu fekkee classé wul dossier bis si toutefois mu dem tribunal bu ñuy àtte nag les avocats peuvent demander la comparision de quelqu'un okay. on peut demander ou dire au juge nous nous la comparution du capitaine Touré ñu programmer ko woo ko mu ñëw taxaw à la barre témoin yi ñëpp dégg ko loolu mën na nekk mais bu fekkee nag ñoom avocat yi dañu bëgg a forcer le doyen des pour mu déglu ay nit li ëpp solo xam nga pour man pour man xam nga la mooy ñoom ñaar ñëpp nee naa la seen i avocat dañuy toog dans la salle. Hmm. confrontation bu kenn foog ne Ousmane Sonko Adji Sarr ak doyen des juges kese la non ku nekk da ngay ñëw ak say avocat ñu toog buñ ci paree nag doyen des juges moom koy xool ndax li mu yor nii jar na yóbbu tribunal ou pas bu ko jarul mu jeex na amul nag bu fekkente ne nag da ko yóbbu tribunal nag laa nag moom beneen procédure la dans ce cas les avocats des deux camps mën nañu demander au tribunal la comparution d' autres personnes yoo xam ne cette fois-ci c' est des personnes qui n'avaient pas été entendues par le doyen des juges est que dinañ àgg foofu nag ou pas on verra liy génn tey ci confrontation bi. d' accord d'